ñu Cheikh mu nekkoon ñaari kaasu xibaar yi defe naa ne tey Mourou Fall dalaa bàyyi ñaar yëpp nga nga ndar nga nga nga yenn ko baara jënde ko ñaari semaine ngi nii mi ngi daw kenn xamul fu mu ne <laughs> xanaa ñaari semaine nag Cheikh boo ko waxee mooy loolu <laughs> dafa mel ne kon euh, diir baa ngi bëgg a yàgg ah, mi bëgg a yàgg de xam naa ne daal <laughs> nañu xaarandi xëy na ñàkkulu sëñ bi Fall balaa altineeg jàmm dina dellu siwaat bu soobee borom bi merci beaucoup Cheikh Tidiane pour cette deuxième tasse actu l'information revient à 13h avec la rédaction de la télévision Futur Média en attendant votre matinale Info Matin se poursuit balaa ñuy xuus mu mel ne Euh, sëñ bi miin fekk si na ci euh, ci plateau bi Daouda borom dossier judiciaire yi bisimilah. bisimilah maa ngi leen di gërëm di leen sant di am mbégte encore une fois teew fii. Euh, ci kanam tuuti dinañ ànd ak moom ci jàngat bi bu boobaa nag grand bourba moo koy moo koy dalal laata loolu ñu dalal yi tamit suñu gan sëñ bi Fall. alors merci beaucoup soxna Astou maa ngi leen di nuyu. di nuyu seen i di profité également di nuyu bépp jàngalekat boo xam ne yaa ci biir réew mi. Mm. di leen sargal. jërëjëf sargal jàngalekat yi waaye tamit sargalaale euh, Cheikh Anta ndax ñu ngi ci ñu ngi ci weeram. tout à fait mm-hmm. xam nga professeur Cheikh Anta moom euh, monument la. Mm-hmm. boo xamee ni dans le monde universitaire et dans le monde scientifique euh, ci juróom fukki at yi mujj yi gisaguñu koo xamee ni en tout cas ci wàllu envergure. Euh, amagum nga ko euh, li manqué rek mooy euh, li nga xamee ni gëstu na ko yi nga xamee ni bind na ko te mënaguñ ko jàngale ci biir école yi te mënaguñ ko jàngale ci biir université yi ba ñëpp xam li mu liggéey effectivement ñu mën a jëfandikoo également li nga xamee ni ay xalaat la yoo xamee ni wéyaloon ni ko ci biir ay gëstoom kon daal moom euh, bay na waaram mu des ñun ñu bay suñu suñu waar ci li nga xam ne moom la fi bàyyi. waaw ñoo ngi sax géem a góorgóorlu waaye dafa fekk ni xëy na euh, xam nga yàlla mooy mooy bind doomu aadama te am na fu mu toll woon ci euh, xëy na ñi nga xamee ni ñoo nekk ci mbir mi di ci yëngatu xëy na njumtuwaay yi nga xamee ni war nañ ko am. yelloon nañ ko pour mën a euh, wane seen bopp xëy na njumtuwaay yooyu nga xam ànd ak jamono yooyu tamit dafa xaw manqué ci réew mi donc loolu tamit xëy na ba tax na lenn ci yenn euh, talent yi mënagul éclore ni ñu ko bëggee jërëjëf sëñ bi Falla bu ci kanamee tuuti dinañu wéyal waxtaan wi ak moom jëmale ci université yeeg lañu fa nemmeeku fan yi ñu génn waaye laata loolu dañuy xuus si jàngat bi fas yéene ànd ak daaw dem miin ayca mu ngi noonu jàngatu bés bi Chérif comme ni ñu koy defee saa su ne ba moom mooy dalal chroniqueur bi dalal euh, gan gi ñu bàyyi la nga déroulé tapis rouge euh, Daouda waxtaanee mbirum Ousmane Sonko ak la nu koy tuumaal. tout à fait asu euh, ko nuyee comme ni nga ko waxee noonu la parce que actualité bi mooy depuis aljuma journal Les Échos bi ñu génnee information di tuuma yi nga xamante ne teg nañu ko ci kaw Ousmane Sonko jiite Pastef nekk député à l'Assemblée nationale benn soxna moom moo ne daf ko siif ci benn salon de massage. démb nag Ousmane Sonko def na conférence de presque tey jii ci 11h ak min waroon naa wuy ji section de recherche ngir ñu tàmbali enquête bi mais condition bi mu posé mooy ñu lever immunité parlementaire lan la ci droit wax ci cas de figure bi. waaw ah, jërëjëf euh, Chérif euh, boo jëlee constitution du Sénégal dafa am benn article article 61 de la constitution bu moo waxoon affaire immunité parlementaire. je pense que le président Macky Sall bi mu tëggaatee constitution bi en 2016 article boobu dafa soppeeku nekk article 50 euh, article 50 boobu nag daf ne euh, kenn mënu topp député bu fekkee ne dafa nekk ci session kenn mënu koo topp wala nga jàpp ko bu fekkee ni assemblée nationale joxul autorisation bi deuxième bi ñëw ne même bu fekkee nekkul ci session mënoo koo jàpp bu fekkee ni euh, assemblée nationale bu fekkee nekkul flagrant délit wala assemblée nationale joxul autorisation wala nekkul condamnation définitive euh, foofu nag ñu bëri fi ñuy waxee mooy est-ce que li ñuy toppee sumaan Sonko dañ nekk ci cas flagrant délit wala nekkuñu ci cas flagrant délit euh, mais loolu également bu fekkee ne da nga jàpp li nga xamante moom la yoon wax lan lañ tuddee flagrant délit mooy lu nga xamante ne mbir mi day doog a am. wala boog ki nga xamante ne dañ koy topp clameur publique topp ko maanaam koo xamante ne tey dañ ko jàpp muy sàcc. wala mu sàcc ba pare di daw ndiiraan bi topp ci ginnaawam di ko topp. loolu maanaam daal loxo ci poos. loxo ci poos wala mu sàcc ba pare di daw ñu topp loolu la ñu tuddee flagrant délit. Mhm. est-ce que tey affaire Ousmane Sonko mën nañu ko jàppee flagrant délit foofu la débat bi nekk. mais dañu gis ni chaque fois ñun suñu procédure judiciaire ki nga xamante ne moom mooy procureur bi dafa am doole bu nga xamante ne chaque fois moom moo am l'initiative des poursuites. Mhm. moom mooy choisir la ban procédure lay utiliser. tey jii boo jëlee par exemple tribunal lu ci bëri da ngay gis ne fa nekk ñëpp. procureur mu leen di inculper placer leen sous mandat de dépôt enrôler dossier bi mu dem foofu buy dem également correctionnel moom mooy jël dossier bi jël li ñuy woowee réquisitoire introductif jox ko benn juge d' instruction pour que mu suivre dossier bi donc ce qui fait tey jii tey jii tey jii amul kenn ku mën a toog wax ne procédure flagrant délit la procureur bi choisir wala dafay choisir procédure correctionnelle. Mm-hmm. moom rek moo ko mën a choisir. moom rek moom moo ko mën a jël parce que moom mooy maître des poursuites moom la code de procédure pénale joxe yenn prérogative yi nga xamante moom mooy ki nga xamante moom mën et puis moom mooy encadrer liggéey bi nga xamante officier de police judiciaire moom lay def parce que section de recherche tey jii mi dossier bi di enquête. mais lépp lu nga xamante ne am na ko ci dossier bi procureur lay rendre compte procureur moo ko joxe instruction également par rapport ak nu muy doxale kon moom li mu wax ni du dem mu wuyu ji convocation bi fële section de recherche kon il est dans son droit. il est dans son droit bu fekkee ne moom dafa jàpp ne dafa jàpp ne nekkul en flagrant délit et que par conséquent war nañ dindi mbalaanu bi nga xamante ne mooy mbalaanu kirlaay muy immunité parlementaire bi avant que ñu koy mën mën a topp. maintenant nag après la suite des événements est-ce que. procureur dina jàpp ne euh, dafa nekk ci flagrant délit mu wax section de ñu dem cueillir ko dem entendre ko loolu loolu loolu yegg guñ fa wala également mu def comme na mu defoon ci ñeneen ñi comme affaire Barthélémy Diaz comme affaire Khalifa Sall comme affaire euh, ñoom nu mu tuddati euh, ñoom Ablaye Balde ay consort bu nga xamante ne procureur dafa bindoon assemblée nationale pour que ñu dindi seen barrage Kër Laye avant que mu leen di topp loolu gisoon nañ ko fi quand même ci jamono yi passé daaw bëgg naa euh, poñ poñ bu njëkk bi mooy euh, le mot session bu nekkee ne dafa nekk session ah. soo ñu ko mënee jàngatal non xam nga session session session parlementaire day naan bu ñu ubbee session comme par exemple bu ñuy voté budget assemblée nationale premier jour bi nga xamante ñu ngi commencé voter budget ba baa ñuy voter budget bi yëpp loolu session la session parlementaire la donc mën na nekk un mois mën na nekk deux mois mën na nekk trois mois donc tant que ñu ngi nekk di saytu li nga xamante moom mooy budget bi temps eh, période boobu ñu ngi ci session des fois ñu génn ci boobu également ñu ubbi benn session bu nga xamante ne dañuy examiner li li nekk question orale xam nga li nga xamante ne moom mooy moom mooy nu mu tuddati gouvernement bi war a ñëw répondre ci yenn question loolu la donc dafa am ci biir euh, assemblée nationale bu fekkee ne année année année année parlementaire dafa am ay sessions yu nga xamante ne diir la bu nga xamante ne député yi chaque jour bu ñu xëyee dañuy dem assemblée nationale di saytu ay ay certain nombre de dossiers loolu la ñu tuddee session. kon daal ab dig nekk ay session période bii ma lay wax ni par exemple député yi nekk ñu session. Mm. parce que nañu budget bi ci décembre fi mu nekk ñu session bu ñu ba ci kanam mën nañu ubbiwaat benn xamante ne député yi. posé nañ ko gouvernement bi ñu mën a convoquer gouvernement pour que ñu répondre. léegi Daado euh, bëggoon naa xëy na su su nekkee mën na nekk. est-ce que jéem a dellu si sur l'histoire de l'immunité parlementaire. lan moo euh, lan moo indi ba ñu ne xëy na ñoom ñoo fa teewal euh, ndaw réew mi mais est quelque part amul amul contradiction buñ ne la loi elle est là elle est faite pour tout le monde après ñu ne ñenn ñi dañoo am immunité. waaw boo xoolee boo xoolee immunité immunité. Euh, pratiquement ñaari catégorie de de de de moom ñoom ñoo ko am boo xoolee par exemple am na lu ñuy woowee immunité diplomatique tey jii boo jëlee par exemple ñun nga xamante ni excès dañu am ñu defee ay ñaawteef wala seen njaboot wala affaire def ñaawteef ci bitim réew dañu am mbalaanu kiir laay nga moo nekk seen kaw parce que dañu nekk foofu di représenter état du mm-hmm. leen bëggee jàpp dañuy demander état du Sénégal pour ñu dindi seen mbalaanu kiir laay boobu avant ñu leen di mën di xam ne dañu am immunité muy les députés député dañ nekk ñoo xamante ne c'est des représentants du peuple bu ko xamee bu ñu ko xamul. Mhm. dañu am rôle bu nga xamante ne rôle bu am importance la. dañ leen di élire comme ni ñuy élire président de la république ñuy représenter citoyen sénégalais yi. di am kaddu yu nga xamante ne dañ koy yëkkati des fois ñu am kàdd yu ñagas yu nga xamante ne dañ koy yëkkati ci gouvernement mm. des fois ñu nekk ñu nga xamante ne dañuy défendre intérêt sénégalais yi donc rafetoon c'est une c'est forme de protection autrement dit protection pour que ñu mën a def seen liggéey convenablement sans pour autant ñu ragal ñu leen di jàpp wala ñu leen di xoqatal wala ñu leen dugal kaso loolu moo tax ñu ne woon ci constitution bi dañ ciy def lu nga xamante ne moom mooy immunité pour leur permettre ñu léegi li nga xamante mooy défendre les intérêts des populations ñu mun ko def convenablement sans pour autant ñu ragal. mais est-ce daaw de quelque part verrou boobu noonu sottiwul euh, parce que tey ku ñu fi bëgg a sa immunité parlementaire similaire saa la lijjanti la jàllale la ci leneen. waaw li ko waral li ko waral parce que tey jii. ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk gouvernement bi euh, nu autorité exécutive bi la plupart ñoom ñoo am majorité assemblée nationale mm-hmm. ce qui fait lépp lu nga xamante bëgg nañ ko jàllale bu ñu ko jàllee procédure d'urgence bu ñëwee ça passe comme lettre à la poste comme nekk projet de loi comme nekk levée immunité parlementaire comme nekk leneen lu ñu bëgg bu ñu ko ñëwee jàllale ko day jàll comme lettre à la mm-hmm. miin bu ñu doon la stratégie de défense de Sonko indi na même des documents médicaux pour wane ne moom salon de justifier sa présence la bas est-ce que yow mi nga xamante ni xam nga droit et puis nekk journaliste également analyse boo mënoon def déjà sur stratégie bi nga gisagul démb ko en attendant la suite waaw man dama jàpp ne euh, am na tuuma bu nga xamante ne yëkkati na ko yëkkati nañ ko teg ko ci kawam tuuma bu nga xamante ne tuuma bu bu doy waar la parce que tey boo jàppee viol dafa am lu nga xamante ne loi bi moom ma ko wax boo jëlee trois cent 320 bu code pénal dafa définir lan mooy viol daf naa la viol mooy tout acte de pénétration par violence contrainte menance ou surprise loolu la la noonu la ko définiré bi mu ko définiré ba pare mu am li nga xamante daan bu mu teg daf ne képp ku nga xamante ne jugé nañ la coupable de viol daan bi nga xam mooy tegu ci kaw moom mooy 5 à dix ans de prison xam nga loolu tuuma bu rëy la moo nga xamante ne tey moom moo ko def tey jii soo moytu dina dem kaso te peut-être élection bi muy xëccoo nii sax soo matul du ko fekke dina ko fekk ci biir kaso bi donc tuuma bu rëy la donc moom aussi euh, dafay am stratégie de défense bu nga xamante normalement il doit se défendre avec ses avocats moom ragal na ni tey jii tey jii tey jii bés bu demee gendarmerie du fa génnaat donc mooy ki nga xamante ni dafay yuuxu avant ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy làq jant bi donc rafet na pour que moom mu ñëw wax ak opinion bi wax leen ni kat lii la tuuma yi nag ñaar la mooy benn bi dañ ko accusé viol mais benn bi également dañ ne ko ci salon de massage bi mm-hmm. ki nga xamante ne Sonko la am image bu nga xamante ne moom lay jox population bi que ni kenn koo xamante ne dafa dafa clean euh, set ci ci nu muy doxale set également ci nit ki nit ki mu doon dem ba nga xam am na ñenn sax ñi ñu koy tëkkale ne ibaadu la donc image bi mënuñu xalaat ni kenn koo xamante yaa ngi woote ibaadu nekk koo xamante ne da nekk koo xamante ne diine moom moo la ñor ay consort ñu lay ngay dem ci ay ay salon de massage et consort dafay yàq deram donc il fallait que mu expliquer lan moo tax mu dem ci salon de massage boobu. Hmm. naa ne explication boobu est-ce que convaincre na nit ñi wala est-ce que convaincre nit ñi foofu la foofu foofu la mbir bi nekkee mais man boog ci li ma yaakaar ci explication bi nga xamante ne daf ko daf daf ko joxe. Euh, dafa am explication bu mu joxe dafa am ki nga xamante moom mooy responsable ki nga xam ne mooy propriétaire. Hmm. salon de massage bi lu mu wax. parce que moom daf ne ñoom massage bi ñuy def massage tonifiant la ak massage relaxant. moom moom la wax mais ñun foofu noonu lañ fay def massage relaxant ak tonifiant la ñuy def moom sonk mu ni moom massage bi mu fa doon def massage thérapeutique la fa doon la fa doon aussi donc mu ama rek waroo foofu ci ci ci ci ci wax bi la deuxième chose mooy moom Sonko daf ne avant muy dem foofu am na lu bëri lu mu essayé am na benn fu nga xamante ne sax dem na fa ba mu ne benn xawma coréen moom mooy massage te wax dëgg yàlla ku mucc ayib la ku am xereñteef ci li nga xamante ne moom moom lay def mais nag problème bi moo nekkoon lan 200000 bi ñu ko doon fayloo chaque fois moom moo diisoon ci moom ba mu ba mu dem feneen moom yaakaar ni foofu également su fekkee ne réellement pour wér-gu-yaram la 200 francs nekkul lu nga xamante ne. 200 lu lu kii la parce que ki nga xamante ne moom si bokkoon ci kàddoom nee na pare woon na pour dem extérieur fay ay millions dem dem dem ñu faj ko. du deux 200000 francs mooy lu nga xamante ne moom moo ko war a war war a muy continuer di di def di def pion foofu donc foofu laa gis ni si sama xel mu gàtt ah mun naa juum aussi euh, fay la bu nga xamante ne man je considère que euh, kii la li tax mu dem ci salon boobu wax dëgg yàlla xaw ma ko mm-hmm. mais toujours est-il que salon boobu quand même euh, bu joxul woon explication bu nga xamante ne bu convaincre nit ñi la mën na ci laisser ay plumes su fekkee ni même sax relaxé nañ ko ci affaire u viol mën na yàq mën na yàq deram ci affaire politique ba nga xamante ne ñu bëri ñu àndoon ak ñoom dinañ tey un tout petit ci li nga xamante ne moom moom lañ koy. donc au delà des faits euh, tey xëy na bu fekkee tourné nañu page boobu y a un autre combat à mener. muy par rapport à son image pour comment faire ba fexe ba tàq li ko wax image boobu. waaw asu asu boo xoolee tey tey tey dañ koy xoolaat su le plan sur le plan mondial y a beaucoup et même des célébrités yu nga mm-hmm. xamante problème de mœurs lañu yàq lañu yàq seen àdduna mun naa la citer ay exemple yu bari hmm. euh, Michael Jackson fii bi mu fi nekkee dégg ci ndëndam affaire viol lañ ko lañ la lañ ko kiwoon wàññi dooleem bu baax a baax a baax hmm. Mike Tyson bu nekkee ci digg ndëndam également affaire viol lañ ko def wàññi doole. est-ce que tey jii boo jëlee boo jëlee boo jëlee tey DSK. Ah, bi mu nekkee bi mu nekkee ñu ne woon sax mu ma doon président en 2012. Mm-hmm. bi lool ñëwee loolu ko loolu lañ ko kiiwal ba. est-ce que quelque part aussi c'est pas c'est pas une arme c'est quand même malheureux euh, que tout le temps muy euh, muy demee noonu et que la femme soit à l'origine de cette entre guillemets situation. waaw mais mais mais xam nga xam nga dafa am dafa am dafa politique dafa am lu nga xamante noonu la bindoo c'est à travers le monde la mm-hmm. que mu nekk Sénégal que mu nekk France que mu nekk chaque fois politique dafa am ay coups bas y' a pas d' arme conventionnelle. non y' a pas d' arme conventionnelle en politique en politique da ngay joxe ay coups mais attends-toi à recevoir a eu l' affaire Monica a y' a y' bi mu commencé ñoom Omar Sarr bëgg leen sonal mhm, mhm, mhm. boobu lañ lañ ko créé bu fekkee ni ki nga xamante moom moo ko tuumaloon condamné nañ ko 6 mois ferme boobu ba léegi déggatoo Jombas Diaw. fay nañ ko. donc tey ji est-ce que lii euh, Sonko dina ci génn indemne c'est la question qu'on se pose en tout cas ñi nga xamante bu fekkee ne am na ñenn ñoo xam ñoo nekk ci ginnaaw pour def loolu également objectif bi clair na mooy éliminer ko au boole kook askan bi ba nga xamante ne image bi muy refléter bi muy wanee que ni image ku clean la ku nga xamante ne ku ku ku ku respectable la ñu mun ko expliquer Sénégalais yi que ni kii kat ki ngeen yaakaar ci moom nekk noonu peut-être loolu mooy objectif bi. est-ce que est-ce que tamit euh, Chérif Daouda mënul jël mënul euh, jur une certaine tension parce que dégg nañu démb ni mu euh, ni mu waxee nee na du wuy ji ndax am na loo xamante ni si yoon may may na ko ko mais tamit dégg nañu woote bi nga xamante ni si jëm na ci ay militants am jëm tamit ci ci ci ci askan wi. waaw mais mën na mën na mën na am mën na indi tension parce que pourquoi mën na indi tension mooy Sonko. Euh, am na benn envergure politique bu nga xamante ne am na ko tey tey jii dem na ba nga xam ne dañ ne moom mooy le véritable mooy chef de l'opposition mm. nga xam ne ñëpp reconnaître nañ ko muy benn euh, la deuxième chose mooy élection bi nga xamante ne passé na moom moo génnoon troisième. Mm. après Macky Sall ak ak ak ak Idrissa Seck. moom moo nekk nekkatu fa donc moom mooy ñëw moom mooy ñëw deuxième position. moom mooy moom mooy moom mooy l'opposant légitime. beneen bi également mooy gis nga ni Sonko bëri na ay ñu nga xamante ñoom ñoo nekk ci ginnaaw surtout des jeunes. ñu nga xamante ne ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy jàppale ay consort donc naturellement mën na indi ay tension tey jii tey boo déggoon ñu ne jàpp nañ Sonko mën na indi peut ay rassemblement de par et d'autre mais est-ce que dina doy pour pour que peut-être euh, kenn du ko tëj ay consort je le pense parce que gis naa fi ñeneen ñu nga xamante ne ngi fi woon ñu amoon doole mm-hmm. ku mel ni Khalifa Sall mu ngi fi woon nekk mel ni Karim Wade ñu ngi fi woon mm-hmm. bi ñu leen jàppee également amoon na ay tension nii mais l'État a a réussi à lu euh, mu tëddee. Euh, circonscrire circonscrire tout cela et que ñoom tamit nekk nañ kaso ba tey jii ku mel ni Karim Wade mi ngi bitim réew mënagul ñëw te dara dikku ci am. Euh, lii bon est-ce que mbiri privé la wala dossier politico-judiciaire. mënoo koo wax mënoo wax mbiru mbiru mbiru mbiru privé la parce que bu fekkoon ne bu fekkoon ne moom dafa ñëw dem defi salon de massage am dem ci massage am après ñëw comme ni mu ko waxee depuis 2019 mi ngi koy def ak ay consort Euh, dara fekk dara fekk ko ci. Mm-hmm. mais bu ñu demee ba nga xamante ne affaire bi dem na sur la place publique mu dem ba nga xamante ubbi nañ dossier judiciaire nekkatul privé c'est une affaire publique. parce que déjà ñu ngi wax naan ay dafa violé couvre-feu ñu ngi wax ne par exemple dafa def benn infraction bu nga xamante ne reprimer par le code pénal à partir du moment où am na ay infractions yu nga xamante ne dañ jàpp def nañ ko rek nekkatul du domaine privé dafay nekk. mais violation couvre-feu moom mënuñ ko ci boole puisque moom euh, député la te am na autorisation circuler quoi. non no non no non non non non hmm. parce que député autorisation circuler bu fekkee ne dafa nekk session mais su fekkee ne nekkul session quand même il doit respecter la loi la loi c'est pour tout le monde. bu fekkee ne dafa nekk session bu jëlee bu jëlee kartam dafa jóg pour dem defi session dafa mel ni man mi nga xamante ne dama yor sama sama sama sama carte de presse autorisé nañ ma pour que ma ma ma daw ci couvre fa mais dafa fekk may dem liggéey su fekkee liggéeyuma dem di seeti sama gel wala may seeti kenn excusez-moi du terme et <laughs> consort bu boobaa euh, dama violé couvre-feu parce que mhm. jóg li tax ma yor carte presse bi taxul ma taxul sauf que li mbiram santé la wax moom dafa évoquer des raisons sanitaires mais moom am na droit def bu violé couvre-feu parce que mënoon na mënoon na def. mënoon na am mënoon na am malaise mm. si këram ak affaire genre mais situation bi ne c'est pas posé c'est pas parce que dafa am malaise moo tax mu génn. Mm-hmm. c'est parce que dafa génn dafay dem massage est-ce que instant boobu dafa amoon ay douleur de dos loolu moo taxoon mu dem également c'est une question bu nga xamante peut-être enquête yi dinañ ko dinañ ko élucider. merci beaucoup Daouda man euh, Chérif am na rek lu ma ko bëggoon laaj par rapport euh, euh, de de façon tey est-ce que on Euh, assemblée euh, quelque part opposition di ko yor wala comme ça au moins qu'on puisse sentir benn benn équilibre buy am au niveau de la société parce que bu nekkee dañ jël nguur gi jox ko lépp lu mu bëgg a def assemblée def ko fa lu mu ko lu mu ko neexee doxale ko loolu tamit c'est un c'est problème est-ce que askan wi jox jox assemblée opposition tanewul ci moom man asu loolu laa loolu laa loolu laa gëm man dama mës a gëm que ni euh, pouvoir yi dañ ko war a équilibrer dañ ne dañu am ñetti pouvoir pouvoir pouvoir exécutif pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire ni nga mën a joxe euh, na laa ko magistrat yi seen indépendance pour que ñu mën def seen liggéey convenablement noonu nga war a jël carte yi boo jëlee président nga jox ko pouvoir pour que mu gouverner nga jël assemblée nationale nga jox ko benn pouvoir parce que tey même boo jëlee par exemple dans les grandes démocraties pour que mu dox la plupart da ngay gis que ni assemblée nationale bi opposition moom moo koy ba nga xam ñoom ñooy imposer sax président bi le premier pour que ñu mën a doxal ñu mën a saytu liggéeyam tey jii tant que yegguñu foofu tey mën nañu wax ne exécutif bi ak législatif bi benn la ñuy doon lu ñu bëgg moom mooy jàll ak affaire générale ko waxee je pense que dans une démocratie bu ñu bëggee véritablement askan bi ne askan bi la su demee ñi nga xam ne ñooy représentant askan bi mënuñu ko bañ a voté dañ koy voté à la culi alim bu fekkee pour askan bi la politique tax na nit ñi seen intérêt la nit jiital que plus que celui de la nation da mën a mën na indi blocage comme li xewoon boo xoolee ay 62 mais miin foofu sax euh, laa bëggoon jeexale aussi mooy ci président Macky Sall sous son air quand même liñ fi levé ay immunité parlementaire je pense que c'est un record historique bu dee buñ jëmee ci bu Sonko bi nii déjà euh, temps créé bi on a levé l'immunité parlementaire des députés wax nga ko sànq Khalifa li ñu gis li ñu gis moom bu fekkee dañuy wax les choses Euh, euh, levée d'immunité parlementaire ak la justice utilisé nañ ko plusieurs fois ci régime Macky Sall contre des opposants loolu mooy li nga xamante moom moo am euh, tey jii genre ñoom Omar Sarr et consort bi nga xamante dañ nekkoon opposition Ousmane Ngom Madické Niang ak ak ak Ablaye Baldé bi nekkee opposant opposant pur et dur jëloon loolu on se rappelle de la liste des vingt cinq personnes ñu nga xam ne pour yóbbu leen créer et consort y a beaucoup de gens tey ñu ngi ci Macky Sall bokkoon nañ ci liste boobu finalement bi ñu demee rejoindre dossier boobu. Euh, ndax saay na ndax saay na gis nañ ni euh, Karim Wade également. Mhm. ba mu fi nekkee di am envergure war a war a war a succéder à son père ci biir parti démocrate sénégalais gis nañ ni CREI lañ ko lañ ko éliminé Khalifa Sall gis nañ gis nañ dossier am tey Sonko Sonko et Sonko et consort donc arme boobu gis nañ ni état du Sénégal euh, disons même le pouvoir bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk APR ñoom ñoo koy diriger gis nañ ni boobu dañ ko utiliser à satiété. maintenant je pense que l'opposition également. ñoom mhm. seen bopp. il faut que ñu def le tout ba ne pas prêter le flanc pour que yu mel noonu ñu mën ko contre ñoom. merci beaucoup Daouda mu nekkoon na jàngatu euh, bés bi euh, merci beaucoup kon altine ak jàmm. jërëjëf merci bu soobee borom bi merci beaucoup mu nekkoon euh, jàngatu bés bi jëm ci dossier Ousmane Sonko rédaction bi dina wéyal liggéey bi toppal leen ko lépp loo xam ne da cee tukkee rek dinañ leen ko baaxee ci télévision Futur Média naka noonu suñu yeneen entité yi Chérif ci kanam tuuti ju dalal gan gi ginnaaw bàkk bi.